ba bi mu génnee ba léegi deful action politique. Mhm. si le le président Khalifa bi mu génnee ba léegi si politique la nekk li tabax yeewi askan wi c'est des mois auparavant mu ciy dox di ci wax ba yeewi askan wi pare ñu mu gunge yeewi askan wi si élection locale gunge leen ci élection li nga xamante ni mooy législative tey nag élection présidentielle moo nekk suñu kanam le président Khalifa engagé na la combat pour une bonne participation. Khalifa bëgg na ko ma Euh, li ko daloon euh, en en est ba tey euh, mucc na ci parce que ñi ngeen ko seqal. ñu si war a jàpp ne ay nit la yoo xam ne comme le président Ngoxe sànq moom mooy choisir à chaque fois ñi nga xam ne ñoom lay ñoom lay jonganteel. Mhm. loolu ngeen am soupçon Karim Wade écarté nañ ko Khalifa Sall écarté nañ ko Ousmane Sonko il a des ennuis avec la justice. taxawu Sénégal tey jii nii bu ngeen basé woo rek rek rek ci candidature Khalifa Babacar Sall est du nekk erreur constituer ce plan B comme on le di waa xam nga ñun lenn la ñu gëm te li ñu gëm la ñuy dem ba mu jeex mooy que ne fii nga xamante ni Sénégal toll na fi la l'élection présidentielle dañuy wax c'est la rencontre entre un homme et son et son peuple. mm aujourd'hui dañoo xool le champ politique xool que ne Khalifa est le meilleur profil dañuy xeex pour Khalifa nekk président de la République c'est tout amuñu beneen plan. li dal li dal Karim Wade en 2019 le PDS est-ce que leen dal. parce que ñoom ñoom loolu lañu jàppoon ne Karim Wade la ou rien à la fin gis nañu que ne voilà. non moi je dis man man man nag euh, dafa am loo xamante ne bu ma si nekkee. dama ci ma ci seen instance yi ñu am nañu soulever boobu boobu question. non que ngeen xalaat keneen. man instance bi ma nekk benn benn <laughs> question bi nga xamante ni moom la ñuy wax à l'heure naka la ñuy def ba pré campagne bi Khalifa Sall nekk mu nekk une pré campagne réussie amul beneen question bu ñuy aborder. Mhm. on se pour que Khalifa Sall bu demee présidentielle gagné. est que vous avez les moyens non dem gagné bi moom mën na nekk mais dem bi mooy problème bi en fait. ñu ngi ci ñu ngi ci. xam nga xam nga moi je l'ai dit moi je l'ai dit c'est-à-dire c'est-à-dire moi je l'ai dit à certains de nos responsables je leur ai dit de 2017 à aujourd'hui nous on se bat pour Khalifa Sall euh, doon candidat mm-hmm. day doon gàcce si ñun Khalifa Sall doon candidat te on n'a pas le résultat escompté on se bat parce que du ñu embrasser ndoo lu bari ñun li ñu intéresse te mu dépendre si ñun on va le faire et li ñu intéresse dépendre si ñun mooy ñu mën a une très bonne campagne ak un bon projet politique. actuellement Khalifa Sall à travers ces ces ces ñan lay waxal parce que on sait tous que am na ñoo xam ne ils sont fidèles à Taxawu depuis très longtemps on sait aussi que. am na ñoo xam ne c'est les bases yi nga xam ne dañoo gëmoon parti socialiste dem ba ci biir amatu ci yaakaar am xam ne c'est des indices euh, ñu ngi toog di xaar tey jii nii moom ci ay génnam ñan ñan ñan lay waxal réellement. <laughs> moom lay wax ne dox mbokk ngir mottali yéene Khalifa parle à tous les Sénégalais. à tous les Sénégalais maintenant li li nga xamante ne presse bi jot na si. Mhm. mooy on tend la mais à toutes les forces de gauche y compris le parti socialiste parce que dañu gëm ne amoon nañ divergence ak euh, le parti socialiste. et aujourd'hui le parti socialiste bu mënee ànd ak président Macky Sall war naa mën a ànd ak Khalifa Sall bi nga xamante ni ñoo bokk parti d'autant plus que. moom laay wax moo tax loolu gars yi nanguñu moom laay wax gis nga li ñu li ñu. li ñu euh, divergence yi ñu amoon ak le parti. Mhm. nekkoon na divergence yu profond mais dafa nekk toujours dans l'élégance on n'a jamais entendu Khalifa Sall tenir un discours discourtois à l'endroit de la direction du parti mm. de même la direction du parti di ko pour dire que ne ñooñu ñu mën a ànd la mais au-delà de ñoom je dis que ne il faut un rassemblement de toutes les forces de la gauche et je pense que ne ku nekk xam na ne aujourd'hui Khalifa Sall est le meilleur profil pour porter le projet pour delloo si waat parti socialiste pour indiwaat li nga xamante ni moom mm-hmm. lañ bokk